làmb ji jeex na ñu ñëw ci taxaw seetlu ci li nga xamante ni moom moo la làmb ji doon doxee euh, ci saison 2021 ak 2022 lépp loo xam ne rek moo jëm ci bilan ci wàllu koppar ci la ñuy dikkaat moonte sax làmb ji lu toll si téeméer ñeent fukk ak juróomi journée lañ ci daal di tëgg bokk na ci fanweer ak ñeenti promoteur ñoom ñoo tëggi ay combat cent vingt 128 écuries ñoo ci bëree mu toll si 44 réclamations maanaam ñeent fukk ak ñett ci boole moo ci am wala bokk ci ay cent réclamations 145 journée yooyu ñu ngi ko organiser fii ci biir réew mi maanaam ndakaaru ak yeneen ci ay diwaan ndakaar am na 84 journée maanaam juróom-ñett fukk ak ñeent Diourbel 18 journée Thiès 18 Saint-Louis 6 Kaolack am na 11 journée Louga ñu organiser fa quatre journées Kaffrine ñaar Kolda benn Sédhiou benn loolu mooy wane rek ci biir diwaan yi des na jéego yu bëri yoo xamante ni war nañ ko cee def waaye itam ci wàllu làmb ji ñëw nañu ci li nga xam ni moom mooy euh, CNG liñ ñu jot a encaissé toll na ci wàllu koppar muy cent soixante dix millions ak lu tegal deux cent dix neuf mille sept cent soixante quatorze mille francs CFA. kon muy koppar gu bëri bokk na ci koppar yooyu naka lañ si mën a xaymawee ñi nga xamante ni ñoo dugal seen xaalis ci biir CNG 12 millions 505 mille ci licence su mbër yi li nga xam moom mooy promoteur yi seen licence ñoom toll na ci 7 millions yoo xam ne dugg na ci biir CNG promoteur sans frappe maanaam ñuy tëgg lute sans frappe dugal nañu ko par lu toll ci 3 millions mooy ci wàllu licence yooyu rek licence manager toll na. ci six cent soixante mille francs li nga xam moom mooy encaissement organisation lutte sans toll na ci neuf cent quatre vingt quinze mille francs waaye tamit ñii di CNG jot nañu koppar yoo xam ne jugee na ci affiliation réaffiliation mu toll ci neuf cent soixante mille francs maanaam écurie ak école de lutte yi nga xamante ni dañ doon jëndaat. licence pour mën a bokkaat ci euh, làmb ji lu toll si wàll boobu wax nañ tamit li nga xam moom mooy ci subvention ak appi toll na ci vingt neuf million francs CFA boo xam ni euh, CNG euh, jot na ko am ci wàll boobu rek ñu jàpp ne li nga xam moom mooy frais équipe nationale bu Sénégal bi nga xam nañ doon déplacé wu dem ay compétition CNG génne na lu toll ci sept million trois cent soixante dix neuf mille fonctionnement CNG maanaam CNG ca na muy doxee dépensé nañ fanweeri million ak ñaar maanaam trent 32 millions 261 mille cent 427 loolu rek ci doxalinu CNG maanaam seen fonctionnement waaye tamit ñii di waa CNG jot nañoo euh, jël ay koppar yoo xam moo jëm ci organisation ci lutte avec frappe maanaam bëre dóor lu toll ci 46 millions cent mille francs maanaam bëre dóor rek CNG jot nañoo dugal ci seen gafa 46 millions cent mille francs 995 mille francs loolu moo tukkee ci xaalis yi nga xam ni jóge na ci lutte sans frappe maanaam ci euh, mbapat bi kon bu ñu waxee loolu yëpp ci sanction yi nga xamante ni làmb ji yàgg nañ ko jooy rawatina mbër yi ñoom CNG ci at mii nga xamante ni jeexal nañ ko muy saison làmb ji li ñu sanctionné toll jant ci 31 millions maanaam fanweeri millions ak benn ci loo xam ne mooy ay gafa maanaam koppar goo xam ni jëlee nañ ko ci mbëri mu dib ay sanction kon loolu mu nekk loo xam ni lu ñu war a taxaw seetluwaat la ndaxte koppar googu bari na lool lool lool kon mbokk yi loolu lañ indi woon ci taxaw seetlu ci li nga xam ni moo soxal ci wàllu euh, lii di doxalinu CNG rawatina li nga xam moo jëm ci wàllu finance maanaam ci wàllu koppar muy mbër yeeg ak ñi nga xam ñoom ñooy manager yi ak promoteurs yi koppar yi xam ni dugal nañ ko ci biir CNG ak it CNG nu mu jot a génne kon ci wàll boobu yëpp CNG fi mu nekk nii la des ci biir GAFAM mooy douze millions trois cent dix-neuf mille deux cent cinquante mille francs mooy li nga xam ne moo nekk ci seen kees jamono ji ci li ñu jot a siiwal